World Music mooy man damay way si bit bu si bit bit mu ma jox dama ciy way ah damay damay damay santone damay damay damay damay def uh, rap damay def façon musique yëpp bit boo ma jox dama ci rab ko yeah ah, man ma xool ah, ay 2010 ah 2010 fekk ma nekkoon école nii affaire yooyu noonu bokk naa tamit ay concours yu bëri ah man def naa presque ay deux singles mais def naa tamit freestyle yu bëri ñu ngi YouTube ñu may flow xam nañ xam nañ xam xam nañ ma quoi ñi ñi ñi nekk ci showbiz bi nekk ci milieu milieu milieu hip hop bi xam ñëpp xam nañ ma quoi tu vois parce que bokk naa ay concours yu bëri en plus tamit def naa ay vidéo tamit quoi non Dip maanaam moom bokk nañ concours 2012 dañuy déggante mais mooy loolu Akhlou Brick non parce que man ak ñoom sekkuñu ko mais dib moom mooy loolu quoi mun naa mun naa ni mun naa ni ñu ngi ñu ngi déggante de temps en temps quoi affaire yooyu noonu parce que xamante nañ bokkoon nañ concours 2012 affaire yi ñoo débuté ndoo quoi comme li mu mun a wax man maa ko gagné waaw trois personnes la woon man maa benn gaan lañu wax ni moom moo jël pay mais man maa leen ëpp le point mais man ak moom ak euh, ak dibla woon quoi 2012 bokk naa fi tamit ay concours ak ñoom wan lyrical ay boy yu bëri bokk naa ñoom concours mooy flop xam booy yu bëri ñoom ñëpp xam nañ ma ay axlu biri boo xam naa ñoom concours ñoom tamit maa leen gañe woon ñoom ñoom ñoom ñoom man boobu kii laa jëloon quatrième laa jëloon quoi en 2000 2010 sa fekk muy soog a débuté sama carrière ñoom bokkoon nañ ci concours bi ak ñoom ngaaka bu leen yëpp non ñoom ngaaka bu leen dañoo géddoon dañoo géddoon demi final euh, Simon moo ko organisé woon Simon fekk man maa si gënoon neex xale euh, ay 2000 fekk sixième laa doon def sixième sixième dama doon laaxatu sax di rab ma dem ba final léegi après ay ñu dëkk Mbour sax ñoo ko gagné mais ak lu biri gars yi mu fi woon mais gars ni ma mën nañ classé troisième affaire yooyu noonu Simon bu 9-9 moom mun na ma seede moo organisé woon affaire yi ñoom ngaa ko blende boobu undi lañ tuddoon dañoo gedd 2012 bi man ak ñoom dibla woon après centre derk la jëppal 2015 moo nekkoon xam nga 2016 man a ñoo moon lirikal ak booy sàmm pose yi affaire yooyu noonu booy xam nañ ma de non man gagné ma leen boobu noonu demi final laa toogee mais wan lirikal moo ko gagné woon final bi. waaw lépp mën a nekk parce que maa ngi dégg safam moom tamit de temps en temps nii après sur Instagram affaire noonu quoi mais koy comprendre xam nga di ko wax tamit mi ngi si wéyam mi ngi liggéey xam nga gars yi ñu ngi si album bi naan tamit affaire yooyu noonu quoi. man def naa gestion j'ai eu mon diplôme mais instant bi commencé woon naa stage mais dama arrêté stage bi après dama nekk sama business bopp damay def commerce xam nga. su ma amee lu ma business lu ma jaay ma jaay ko affaire yooyu noonu quoi non parce que fii nii xam nga. Euh, da ngay jàpp ci lii ba leneen fekk si la parce que Sénégal fii ku ne xam na ni amul industrie quoi tu soo xoolee sponsor yi euh, ni ñuy beneen euh, beneen kii ne artiste international su ñëwee ñoom ñooy daw envers les si artistes yooyu noonu mais fii nii artistes yi ñooy daw envers les les sponsors te ñooy jënd ndox ñooy jënd crédit ñooy ñooy jënd tàngal ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy jënd kafe ñooy jënd lépp te te xoolal euh, soo xoolee essence bi met Jims ak daju ñu ngi fi waaye ñëw mais si ngay gis sponsor yi ñu ñuy dawee ay orange ak non mais même gars yi bu ñu tojul mais fii suñu dëkk la te yow balaa ngaa woote da ngay jënd crédit da ngay jënd da ngay jënd da ngay jënd tàngal benn dërëmu tàngal boo ko jëndee participer nga si réew mais loolu noonu xam nga euh, soo xoolee ma xool comment dirais-je euh, soo xoolee loolu noonu ñàkk a ñàkk gëm suñu réew la tamit ah gouvernement bi tam war nañ si taxaw parce que mooy loolu ñoom ñoo ñëw suñu réew installé fii tey ay orange ay exemple de soo xoolee dib day teg ay ngandi concert nit dof pareil keneen ak keneen mais gars yi pour ñu sponsoriser la nag yaay daw seen ginnaaw mais du yoon ah man maa ngi sama maa ngi sama wéy maa ngi sama job mais soo xoolee tamit ah, man dama signé ci label quoi te dafa am ay normes yu ñuy doxee man jéegi gars yi maa ngi maa tamit di leen siyaar di béggee sama gars yi ñoom Pago Brice KMT El a ak gars yi ñoom Ndobin mooy booy bi gagné flow bi flow bi passé mooy 5 millions yi maa ngi koy saraat di béggee gars yi tamit waa staff beeg ñëpp ok sama freestyle yeah moo freestyle wala wala def la wala tem wala yeah benn booy ma neem ràññee nga bro bi yow ki yàgg lëmbe sa saayit ni dof bu wëra di meen sa papa la ci rabbi tojol mani general may tangal tan bi te bokk mag ñom metal lu kat mi am hat ba no fi don chat woti fasela boy ni gel bi ñaan bat ruel bi comeback senel ak lay class courant bi coupé na boy ken du fi jangat cause du neneen de nga risse ndax sa papa dafa chap man avant sama naissance ci la tambalé di rap fis galu dof du terre jarul ngay sani xer bobu ci dof dof lu xarma bunti cimetière old school yi may sis ñëpp lay suliman. demal nga wax gaa yi gomu seen duulu meen paako eke ndongo laxasaay bay faal bu gàddu kuram bu ko yaa ko tay bang yeah